compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko def ndànk rek <laughs> bu mu yàqamte rek affaire yi moom seen doo sama jarul buuxante ko am. Ndiaye le 5 avril xoolal lay génn. waaw Abdoulaye da siy maye tuuti ay jaabu roi bi. jaabu roi bi. ngeen di défilé kon le cinq yéen. njaab lay génn. njaab jaabu roi bi nii Paasow nii. Franc nii. Molo nii. Daam nii. ak Boy Faye ak ñëpp nii. njaab bi. njaab bi. rendez-vous. rang muy gaaw. lu tax ñu bañ ko nee ñu bañ ko. lan lay laaj. lu tax ñu bañ ko. ñu bañ liiru Diane. moom na lu moom kenn bañu ko waxinam la ñu bañ. waa am déet. Eh, waa loolu. loolu kenn soxlawu lool ni da ngay wax ay wax yu correct loolu laay bañ a dégg ah loolu gis na loolu góor du wax loolu sax quoi góor du wax lool billaay war na bu bu royee ñoom ñoom fa ne ay ball Gaye ak Lac de Guiers gis nañu seen wax yi ñoom ñoom mel seen wax dafa dëgër këcc suudew comme man billaay wallaay taala wax bu mel ni omelette bu xëm nga xam lii mooy wax mais omelette bu ñorul ay wax yooyu dama soxla wax yooyu. kon liiru omelette bu ñorul la. liiru daal vilain la du omelette bu ñorul il est liiru jaar man xooma lu ma ko ma la ilaha illallah man maay avocat ñaa géejawaay. waaw monument. ngeen kay mooy monument la au marché les géej les diwtiir les bisaab loolu la war bu ñu mu sonal waay yow laaj ma leneen. ma waaw du dara du géejawaay du fa dara. mbuusu ndox la rek mbuus ndox ñu naan sol si sase ñaar dërëm mi moom la fa. du ko jaay mbuus ñaad dërëm du fa bu waddee toj du dara. liiru jaan du dara. Ah. waaw liiru jaan bi waaw waaw loolu du ah waaw. loolu waaw non yaa wuli fa nga wax ci démb tase ngeen stade. non dégg naa dala poñe. non bas la daje stade man gisuma ko sax. non dégg naa yow yow wule tax nga tourné. ci bunte stade bi la poñe non dëgg loolu loolu. loolu fekk wuli sax bu ngeen da ngeen koy may bës moom daal comme mi ngi may dëkk fépp rek na continuer dëkk yi rek fu ma gis nee na nee na daf ma soxla na ñëw ñu bëre nee ko daal na continuer dëkk yi rek yàlla baax na loolu rek laa ko yàlla baax na ma ne ko yàlla baax na yooyu bugguñ nee daal yàlla baax na waaw man ku ma jël barke Nabil Moustapha di nga bëre di nga xeex di nga bëre di xeex. kon wula dina bëre xeex. yàlla nañ ci yàlla yóbbu rek ci doole Mouhamadou Fadilou loolu rek la ñuy ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm dëgg non dëgg la moom bu entraîné kon ñu war a def. yokk na poids bi de. waaw déggoo li ma la na mat 116 kilos yooyu amul problème. ëpp na ko waaw poids du bëre. ñun poids poids bëriwul. normalement ko poids bëriwul mbër fi nekk 200 kilos leen a gis roi des arènes ki yor roi des arènes bi mu ay Modou ay cent cinq kilos lay doon wala quatre-vingt-dix kilos poids bëriwul bu poids doon bëri rek nga gis tubaab yi doon kat ci foofu noonu di ñëw di def chinois japonais yi ñu ñëw poids bëriwul mbër mu la ëpp poids moo la gën a daan jël bu moo la gën a mën a daan jëlu di yanke yooyu bëriwul yooyu moom bëriwul mbër da ngay entraîné ba of gan. xeex bi muy xeex na ah xeex bi muy xeex. da nga naan tàccu bu muy tàccu xeexul day tàccu. kan day tàccu. wulli xeexul day tàccu. loolooy tàcc taj taj taj taj loolooy xeexul day tàcc waaw loolu du xeex loolu du xeex xeex da ngay viser nit ki laal ko ci bët bi pan mu ñëwaat nga laal bakkan bi loolu mooy xeex mais ñoom loolu man loolu ma gis gisuma xeex. Hmm. man loolu gisuma xeex man loolu gisuma xeex. Adama Diouf nee na ndax yaa ngi ci réew mi ah Adama Diouf ah moom <laughs> moom Adama Adama moom comme moom comme waaw dama koy kii ma xam rek comme mbër la. waaw comme moom mbër la am na waaw moom sax Adama Diouf mbërëm mën naa kaa kii na ndax mm. yàgg naa waaw mën naa nangu Adama Diouf mbërëm ndax naan naa ko gis fi ay kii muy bëre am de léegi laa moom mbërëm sax mën naa kaa am doo amul problème man dëgg rek laay wax quoi mais làmb tey boo bëggee mbër wala mbër boo wulli mbër la daan na bëre ba muy bëre man daan naa seetaan ay kombaam yu bëree bëri bëri ma xamal la ci loolu ba mu doy bëre ay saace fi la ma fekk bu muy bëree ay caat booy bambara man fii lañ ma fekk ay garçon def ko booy doo xam di ko tëggal laa yëpp fekk nañu fi am de lépp mbër la daal mais gis nga làmb dafa doon loo xamante ni ah, mën nga dëkk nit sax mais am dëkk ko ci boo xam ne ak yar ak respect ñu xam ne kii dëkk nga mbër ak respe am de booba nit day sawar coow mais ay yenn def ni war man bugguma loolu man bugguma loolu dama dama xam nit kenn gënuma bu dee wax nit dàquma ko def am de bu dee saf nit gënuñu koo saf mais xam na boo bëggee da ngay tax wax correctement léeg-léeg la am ñu comme ñu comme man maa ko mag mu ñoom mbëri ñu joxaale ñu tuuti am de ma man yàgg naa tey di dëkk la de guerre mais mosuma ko fi wax boo xamante ni manqué dañ ñu respect am de bal wax ay mën naa bëri la de di tooñ la de guerre nañ bëri léegi la am de mais mosuma ko dépassé. mooy mën nañu wax lii wala mais ay wax yooyu man du ma koy du ko mën a suppo ndax man maa moom sama bopp. ok am na solo pare nga pour def ko. dama koy nangu ji. dama koy nangu ji. looy nangu. NMA bi gars yi di wax foofu am de dama koy nangu ji. noo koy nangu te damay gis gars yi def NMA bu ñu demee di takk ay protégants di nëbbat loolu dafa jar a takk. gis nga ñuy Sénégal dafa bëri ay ñoo xam takk yu bëri yooyu bu yàggee ay sol produit bu yàggee da lay def ay lesbi wala góor jigéen la lay def. man bugguma ay proté man bugguma loolu. ay takk protégeant band loxo. gis nga yooyu dof man yooyu mooy lan. kon yow yaa ngi wuli bu ngeen di ma ko. arbitre bu taxaw pour a lay mbéj waaye man maa moom bu ma gaañoo si man la ci man lay yëg projet Dieng bu ñu ma ko forcé ma xam ne moo dama koy yëy. wala nga wan ba mu dama koy yëy ba mu mokk ma buusu leen ko dañuy yaakaar gàllaaj fekk soxla ma yooyu waaye ay protège dent yooyu ñun soxlawuñ ko. mais MMA tamit métti na ne Batika. non soo méttiwul barki yàlla méttiwul yooyu looyu méttiwul loolu énorme eh, yooyu méttul parce que box kon box box box kon box métti yooyu du dara man bëgguma sport bi nit day sol ay gants xoolal loxo yi fu muy yëngu rek nga gën a bës déggoo li ma def ci xorom dóor ko ko pang mu xam ne dóor nga ko loolu mooy ba noonu dëgg la ban foog ñuy dóor muy kii mais ay gants yooyu boo dóoree mu mel ni mouchoir lañ la dafa laala la parfum ki at soxlu ma loolu man bu may bëri kon du ma takk protège-dents du ma takk dara noonu lay ñëwee mag sama laat na nga gaw muy gën a dagg waaw yow man dama bokk ak mbër yooyu noonu. Lirou Diane damaa fàtte am na lu ma yóbbante woon nee na xanaa tey nga mën a xalamal Modou Lo ndax lu ne wax nga ko. non dégg gis nga Lirou Lirou man lu ma mën a wax Modou sama rakk la. Modou nee na yor na audio man lu ma war a wax rek man Modou sama rakk la Modou mos mos ñu seq mais ay Lirou buzz la ñu bëgg nit ki boo nekkee si làmmañ di wax di wax wax ba ba wax yóbbu la Europe boo yeggee nelaw boo yeggee nelaw am de déggoole parcelle mbër yi fi ne léegi ñi fi maanaam ñi fi gën a yor maanaam position mag man presque man fii euh, laa ko féete Modou Lo bokkuñu génération mënuñu waxante dara koo magee sept ans mënuñu waxante wala am déet kooku mënuñu waxal kooku sama jarbaat la ni may defantee samay jarbaar ay ñoom ba Moustapha Guèye ay ñoom Dame Sène noonu laay defante Modou ak Brésil moroomu Brésil la Brésil maa jàpp loxoom di ko yóbbu muy bëri ñoom mënuñu jëfanteeg Modou Lo mënuñu defanteeg Modou ay seytaane yi ñëw na di jaxase Demba ak Samba Ginaar rek Samba Ginaar ñooñu la ñuy geer ñoom ñu xam ne ñun nëbbuñu lu ñu def ñun Touba lañu ñu gëm ñun bu ñu wàccee liggéey Touba la ñuy yóbbu am na ñoo xam bu ñu wàccee liggéey du leen fa denc tuubaa du même porte quel lañ fay denc de maanaam dañ koo defaraat dangay wax wax correct ñu xam ne kii góor yàlla la suñu borom def nga wàcc liggéey ñu yóbbu la fa mais boo ci boole ay nii ah dambay ay duñ la fa denc. kooku sëñ Touba duñ dañ sa oto yàq sa oto la ñuy na sax xaj fu ngeen jëm Touba amatul déggoole ma sëñ Touba da koo liggéey luñ ko teg ci natt ba mu ñëw ñoom ñëpp la jéggal yal jéggal naa leen ngeen di jéggal yàlla na leen yàlla jéggal bi jaay Moustapha kooku sëñ Touba moo ko du fayante du defante dara moo tax yàlla may lii sëñ Touba moo am lépp lu sëñ Touba am rek am det yonent bi maanaam yonent bi moo ko may yor seede yàlla yonent bi lay teg ba am lépp lu ne def nañ ko nañ ko sotti nañ ko ba tëj ko ci ruq dóor tagg ay sox dóor ko ay bal lépp ba mu paree mu ni jéggal naa ne xoola lool rek te ni ngi may filmé ku la doxoon tey mbéj la yaa ngi gendarmerie xoola lool nit da ngay oyof. waaw sëñ bi moo oyof. waaw ñu jëm feneen sëñ bi rek oyof jërëjëf a Touba. jërëjëf Serigne Touba eh, eh, kan nga ci bëgg njëkk a bu kisu wala rëg rëg wala kan. ah mais rëg rëg war nañu laalante ci MMA ndax dama daan Cheikh Kanté magam la. waaw mais gis nga yooyu nañ ko mais bugguma tuy toog ay taxaw nii wax fii làmb fii ñëpp. mais rek rek ëpp la doole MMA kan ci rek rek. bu ma ëppee doole ma ëpp ko lu may julli nag. loolu amul bàyyi loolu amul chaque jour ñu leen yàlla moo yor ndam moo yor mooy xool ku ko neex jox ko ko. pare nga pour bëri yàlla moo yor ndam. Balla Gaye ak boole wuñ leen fi ba ñëwee ba ci stade bi Balla Gaye dawul ne kii sax moo déchiré ñu jox fi Ness victoire bàyyi leen loolu yàlla moo yor ndam. MMA ak Reug Reug Batik ah, yow tamit gisoo ki mu doon bëreel di naaw ci kawam di ko dóor. ñooñu dañoo oyof man bu naawee moo sëggee gis say tànk dootoo naawate de jour boobu lay bàyyi naaw am déet ñoom fee la ñuy taxaw di wax ñun parcelle lañu dëkk am lu rëy am yoof am jàmmalaay am Cambérène am ñaari rakk yi ci julli géej gi l'océan Atlantique Serigne moo tax parcelle am barke. di nga fi ma sa gis mbër mu ndawa ndaw nekk parcelle tuuti am déet jëmaat jëliwaat roi de arènes indi ko fi ñun bëgg nañ juróom benn roi des arènes. fii ci parcelle bëgg nañ ko. Ah. barke alxuraanu karim looloo tax parcelle dafa am barke. alxuraanu karim du question ndax ni ñu ñu séq moo bari. Cambérène Yoff. Bombardier tamit day def MMA. waaw waaw Bombardier waaw Bombardier moom waaw suñu grand la. mais Bombardier non suñu grand waaw waaw. gis nga nag gis ma ñëw yéen laay waxal gis nga bàyyi leen seen affaire yooyu mais lan dax tax ñoom suñ koy def man waxuñu ma ay ñoom bàyyi ma ñëw am na balaa ñoo ay ñoom bàyyi ma ñëw di fëgg taabul bi ah yow. bàyyi ma ñëw daree rey de. waaye coo tët tët bàyyi ma ñëw wuy ma. bàyyi ma ñoon gis nga bu ñu jàppantee gis nga bàyyi ma ñoon bis bu ñu jàppantee buy ma day day maanaam dama leen ëpp lu may entre man sama lépp a maase te dama ñime kuu loo tax sama làmb di neex ay enema moo leen fa fekkee ñoom dañuy abale da maanaam déggoo le ma dama leen a ëpp doole Lamine dama dama dama ñoom bàyyi ma ñoon ma dama am hygiène bàyyi ma ñoon mooy ma barke Rasulullah man dama am hygiène de vie man dama am hygiène déggoo li ma la déggoo xam nga ñoom lan la lan lañ ma ëppale ma mag leen tuuti rek te mag yi sax bëriwul ma mag leen tuuti rek mais ñoom ñëpp ëppale am de mais ñoom ñëpp daal jëluñu roi des arènes amul lu ñuy taamu suma ma leen bu ma leen laajee dañuy ne man maa leen laaj. Hmm? jëlu leen roi des arènes. ñoom ñëpp ñu ko jëlu xam nañu seen bopp ku jëlu roi des arènes kay xam nga sa bopp. non MMA bi kay laa bëgg nga laalante ci. waaw MMA moom bàyyi laa fa ba. MMA pare nga sax pour bëri ci kii liiru. ñëpp ay Siteu yooyu yëpp bari ñoom ñëpp laa wax ni te Siteu bu ko yàlla defee paasoo ma daan ko dama koy jëlaat si MMA bi daan ko. xam nga làmb fii sax day am politique noonu di woo léegi laa di indi di xam ne nit ñi di wax mais MMA ci boppam man dem ñëw naa pour bokk ci léegi. bas ba mu jógee Canada loolu ñëw taxaw di wax suñuy visa pare na de. Hmm. fu ñu dem ñu fekk leen fa. waaw moom mais mais mais bu ma toogee sama âge di dem wala sama kii ama amalu ma njariñ déggoo la man luñ ma dégg NMA lépp pare naa mais doom dem dox foofu lan man moom mooy sama métier retraité wu ma maa ngi ci làmb. kee jël roi des man jëlu ma raw ma war na ñu bëre. bàyyi ma ñoon mosu jël roi des arènes jegewu ko man jegewu ma ko. am déet def na rëg jege jegewu ko am déet ñeneen ak jege jegewuñ ko am déet mais vraiment bu ñu yàq làmb ji nañ ñëw ñu bëre na quoi. balaa maa dem bàyyi làmb ñu mujj am gàcce gisaan ma ni man ñu daje fenn di waxtaan ñu man ne yow yaa bañoon a bëre man da ngay ruus am gàcce nu ñu bëre man mbër laa te ay ponkal ñoo may indi. waaw man xa man mbër man déggoo ankay am de mi ngi noonu mais man man ay man déggoo li ma mais bu ngeen taxee di ma wax man nañ ma nañ ma boo gisee sama combat ak wulli bëgg naa ko sax wala sama mais boo gisee mu xaw a yeex damay no mais sama staff yi gars yi ñoom sookaar ñoo nangul ay Tafa Junior. am de ñu am naam bëgg ñoom ñoon na lu mais vraiment xam nga làmb nag ku ne mën nga daan sa morom yàlla mais dañuy ñaan di sukkandiku suñu borom mi nga xam ne mooy may ndam képp koo xamante ne jël nga yàlla na suñu borom def ma daan man noonu koy ñaan ndax joxewuñu ndam mais nag ñoom bàyyi ma ñoon ñoom ñëpp ay mbër lañu mais mais buñu manee man ñoom waruñu ma bañ am de man man man làmb man làmb ñoom waruñu ma bañ dama daanam dama fi bëre tegloo ma fi trois défaites tegloo ma fi quatre défaites ñaari défaites laa tegale ñëpp moom la ñu tegale am dër ñaari dafa lañ tege. waaw man ñoon ñu tegle ñaar man ci laa bokk teglewu ma ñett su ma teglee ñett yi bëri aw ma si wax mais déggoo la mais ñaari defet laa tegale nañu waxante dëgg. waaw dama daal maanaam dama daan jogwaar am dër jël Cheikh Ngiraan ma dóor ko ba pil bi jóg gàll sama loxo mu wër ma ndomba ma prise def kaat ak sama ngemb laal suuf ak laay gaynde kese mais ñu fi tegle trois 300 defet a ngi fi. waaye yow ñaari defet laa tegale ñu fi tegle 1800 defet a ngi fi man dañ ma dàq palmarès Samba njaay moom la tegle Ibra njaay moom la Demba Ndiaye moom la tegle Ibu Xuur moom la tegle ak Ibu Suuf waaye yow ak Ibu njaay am de ñooñu tegle man ñoo am de waaye yow. yow deux rek nga tegale. man deux laa tegele mais Santa kan la la daan. waaw déggoo leen Santa ba may loolu yàgg na. am cent cent ans yàgg na. kañ nga yow kan dama ne déggoole ma dama ne déggoole ma dama ne ma la. dama ne ba ma ba bëree Cheikh kan tàppakan bu caaro yi cent ñi ngi moo ma moo ma daan dama. waaw dama daan Cheikh kan après cent ans ñi ngi daan ma. am dëgg cent ñi ngi daan ma ci bopp ma bëri après ñu toogaat ñu ma ñaanal cent ans revanche mu jox ma ma def quatre appi mu daan ma ma daan Jaguar loolu aw ma ci dam am dëgg Cheikh Ngiraan daan ma ak Laye Guèye loolu ñaata defe laa tegale du ñaar. mi ngi noonu bu ñu nax seen bopp am na ñu fi tegle cinq défaites ba six te ñu ngi bëre ëpp nit ñi làmmañ a ah mais gis nga yéen da ngeen bokkul ko yàlla dëgg la bëgg boo reyee nit neel maa rey nit ñu bàyyi ñee yàlla dimbali la ak yërmande mu baal la mais bul rey ni xiim toog ni kee ko rey wala kee fekk yow la ñu jàpp ñu tëj leen fekk yow la neel ah man kat bëgguma ngeen man lii kat man la bu ko defee suñu borom day ñëw yërmandeem waaw mi ngi noonu yàlla loolu la bëgg dëgg waxal dëgg. léegi yow grand combat ngay bëri fii wala wala war wala préliminaire. man man grand combat spécial laay bëri grand combat damay bëri nit ñi ñibbi. Ah, yaay yaay mujjee bëre. man bootuma ci ay mbër yu leel ak ay mbër yu tumuranke. waaw mais est-ce que am nga supporter yu mën a feesal arène nationale. déggoo li ma la waaye man arène nationale bi arène nationale day mel ni ma guux fonde buus ko nit ñi ñëw. man arène ba yow. yow déggoo dégg man fu ne dama fa bëre. man combat Jogar bi maanaam promoteur bi da cee gagné maag Jogar mais lan moo tax mu perte ci dañu tëj buntu stade fa fees ba xaju fa loolu du perte maam ñu tëj porte loolu perte maam la. ma xamal laaj ko sëñ Modou Niang waaw laaj ko sëñ moo Niang mi tëggoon làmb ji man man dëgg rek moo tax mu wax stade bi dañ koo mujj tëj sama boy Niang ga xaaj bi kenn dugg ndax fees. am de mais stade bu ma demee ba gis ay mbër di ko feesal mbër yi nga xamante ni dañu dem ñaanat CNG mu bàyyi leen ñu bëriwaat ñooñu man ñun ay xal dañ koy duy ba mu rembet dañ koy duy ba mu rembet man am de man bëriwuma benn sama combat spécial lay doon ma bëri nit ñi yàlla jox ma ndam ne nit ñi ñibbi man néew ma maay diwooy bëri nga bëri wala yaay topp ci ginnaaw diw ñooy promoteur sax xalaatu ko promoteur sax xalaatu ko pare naa nag. dama ne lamin pare naa de. pare nga naa pour tout le monde. pour tout le monde. waaw pare naa pour tout le monde xale laa gis nga maa ngi entraîné. dégg naa ci yow Bas Safa bàyyi na bëre. waaw non Bas Bas dama ne ko mu ñëwaat ci lamb ndax xale la comme Bas commencé na tukki yéeg avion wàcc ñëw mu ne ko Bas du noonu yow xale bu ndaw nga yow xale bu ndaw nga yow xale bu tuuti nga Bas Bas amagul sax 30 ans ay 25 ans 26 ans kii kii war na bàyyi lamb. ah kii warul baayi day am. xam naa loolu lu lu ciy pexe wax nañ ko day bëriwaat loolu rek mooy. pexe bi si nii wala mu dellu Canada toog fa rek. daam seen am na combat daam. waaw am na adversaire bu doy war. waaw daam combat waaw waaw daam combat bi mu am ñun wax nañ ko xale la. waaw daan ñun wax nañ ko combat bi daam am ñun xam nañ ko. nandi lay bëre nandi. dégg nga man xam naa nandi faal bu baax a baax a baax. ni ma xamee daam noonu laa xamee nandi faal nandi faal tey bu ma romboon ñaari loxo lay ñëw du nuyoo te xam na ne bu combat bi taxawee daam seen sama rakk loolu jarul werante kan laay àndal am déet mi ngi noonu mais daam dama koy xam ne sama rakk la bu ko kenn guuxal ci làmb ji naan ko paate wala ma demba daam mbër la naan di faal mbër dëgg la am déet di ñaan nag daam teg ci bakkanam respecté ko mbër mi ñëw taxaw yàlla may ko ci ndam ñun loolu dañuy ñaanal daam am déet mais di ñu naan yaa mën diw wala yaa mën làmb kenn mënul. mu des combat Modou de juillet. Abdou Bakhoum moom nee na roi bi da ngeen koy ñàkk moog Jules Balde. kan ci. Jules ngeen koy ñàkk. Abdou nan. Bakhoum. Abdou Bakhoum. moo waxoon Modou Lo du ma sa nekk roi des arènes xam nga ah, te Modou Lo nekk roi des arènes. nee na nag da ngeen koy ñàkk. ah yow ku waxoon ne du ko nekk. kii nekk ko. mu ñëwaat ne dañ koy ñàkk. ah. Abdou Bakhoum de. nga xam ne lu waay maaf mi ngi fi. Abdou Bakhoum nga xam lu waaye maas rek mi ngi fi Modou Lo roi des arènes day yàgg ci moom man maa la ko wax day yàgg ci moom Modou da koo kafewul sax da koo kafewul sax. Ama ah, tamit kafewu ko de. waaw déggoo li ma la mais moom mën na koo kafe ndax moom yoru ko. <laughs> non dëgg la c'est que Lamine yéen day mel ni yéen seen jàng. ça m'a fait quelque chose quoi. am de mais yow am de yow ki koy yor. am déet moom café wu ko yow kii yoru ko nga ne donc boo mënuñu bokk moom balaa kii koy yor moo xam da koy moom moom c'est moo ko café wul yow yoragoo ko noo koy café yow balay balaa ngaa kaf baal boo yor mi ngi doon déggoole ma bala man boo gisee du ma ci wax ci roi ndax man man café ma ko romb ma yoru ma ko hmm. te samay morom bëri nañ fi waaw samay morom bëri nañ fi def nañ lu ci làmb jegewuñ ko tàkkusaan bu ne def nañ ko làmb jegewuñ ko moom nee na bu sew leen di dóor waaw Jules waaw Jules mën na ni xiir bu sew bi waa xiir bu sew ñun ñun ñun ñun ñun yoratuñu xiir ñoom feeg ba ñu déggee tecc teccaara ba léegi no laa ilaha illallah suñu làmb mooy fet ndax ndax dañoo entraîné entraîné entraîné non bi la tey su ma demoon tey am na mbër yoo xam su may bëri sax damay ñaan CNG ni ko ndax mën naa sukk sama ñaari oom ci suuf di léewatoo <laughs> non laay ñaan CNG ndax mën naa sukk sama ñaari bëtu suuf di léewatoo ndax am na mbër yoo xam su may bëri ñoom rus naa taxaw di léewatoo ñoom. comme kan. xam nga déggoo xam xam ma yooyu noonu. comme kan. non bu ma tuddal ci kenn kan waxal yow ko yaa tudd kee moom kee moom dégg naa léegi mu ñibbi si. ñaan naa ñu refoulé ko mu ñëw. liiru jaan moom ñaan naa ñu refoulé ko mu ñëw. kontaan naa ci yow kontaan naa ci liiru daf ma metti demam gi liiru daf ma metti demam gi. billaay yàq jam jam bi jamee kee def lépp ndeysaan tuddee ko waaju baax jooju laamu ji nu mu tuuti waay. Pape Sow billaay Pape Sow musuma ko gis mais dama xool image am ci tele bi rek. xool jëbi ndax damay xam leer. xam ni kii musul tardé julli waa xam ni Pape Sow mi ngi julli am de liiru de liiru jaan dem yàq noonu làmbam jooju noonu ah dem États-Unis te defu fa dara bale rek la fay def ak raxas ndab ah. ay waay liiru waa kan moo ko jox visa bi dafa ma met ah barke Rasulullah ren Trump nee naa ko buy ma am na ku ma woo téléphone da koy indi dañ koy dàq non damay ñaan ñu refoulé ko mu ñëw. tàggatoo ñaanal mu jeex. waaw ginnaaw bu ñu santee yàlla julli Seydina Mohamed am déet am déet di ñaanal waa Parcelles mafia bi di ñaanal waaw maanaam di ñaanal AFC Santhiane bi boo yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay ñoom Seydou ay ñoom Kawsu ay ñoom Mansour ba nekk mujj gi football ba bàyyi nekk président bi yow di doomu père ba ñoom ndax man dama bëgg AFC Santhiane man moomay ki bind samay gërëm bëriwul. man gërëm moom boroom alal ku yor sa alal am nga sa mbokk bu nekk dëkk ba xonet demal nga jox ko man ñuy julli laay gërëm ak ñi nga xam ne ñoo fi def lu baax ñoom laay gërëm am de di gaa waa Sancaan ñi xam ñoo fi nekkoon booy yi am de di leen ñaanal équipe bi nawetaan yi léegi mu ñëwaat gars yi defaroon ASC bi di ñaanal ñi nga xam ne ñoo doon bokk ñun ñëpp di entraîné saal muy sauvé soo kaana moom ba mu combat bi amee lekkatul naanatul barke Rasul laay fu mu ne six mois ngi nii barke alxuraanu karim déggoo ma maanaam dafa tëj néegam dem seen kër defatul da loolu yokk ak dooleem. soo soo kaana mafia bi ñoo nekk ànd saal di croco moom it boo ñëwee tey maanaam croco boo ko gisee fi saal sa entraînement day gën a yokk ndax bu tey bu ma yëkkatee cent kilos croco yëkkati cinq cent kilos damay kontaan suba damaa ne damay yëkkati cinq damay am doole Bastafa Gueye am dër ñoom Badou Dieye mi nga xam ne moom ñoom ñëpp Badou yi nga xam ne suñu rakk moom it am doole ndi xaydu kurokoo bokk benn doomu ndey ñu ngi am ay ay bekkaay mi ngi noon barke Rasul laay kii lu leen di ànd nañ ci temps xale Medina fépp la xam bekkaay kii dara jaaxul ko ci Afrique moon Afrique waaw waaw dégg tarkindaay yëpp moom dëgg la waaw ñëpp mi ngi noonu yàlla di waaw waaw mi ngi noonu barke alxuraan kam di ñaan daal waa kër sëñ Fallou rek jaamu ruwaay bi la soo gën a temps. waaw jaajëf jaajëf waaw jaamu ruwaay bi <laughs> soo laa bëgg mu gën a jaamu ruwaay bi. waaw waay. jaamu ruwaay bi xanaa ngay waajal la cinq. lii du la cinq de. pour la kañ la. addina. muslaay bi la. néew ji doole yi lañ fi taxawal. waaw jaamu ruwaay bi la. lii du ay la cinq de lii pour waa néew ji doole yi la. waaw jaamu ruwaay bi la. xam nga néew ji doole yi. néew ji doole yi waaw. ñun pauvre yi. ñooñu ngay xeexal. waaw ah, ñoom laa fi nekkal. Njaabu Roi bi dafa am loo génne. Njaabu Roi bi yaa gën a xam. war nga Njaabu may bañ abooy. daa nag la gars dañ laa jàpp ci gàllaaj instant bii. jàpp nañ laa téye. jàpp gàllaaj. maa mel téye nañ la de. kan la ñuy jàpp. yow nañ laa jàpp laa wax. mos nga gis ñu jàpp Firawna. Firawna déedéet. kenn mënu ma jàpp. Firawna moom mooy Firawna. dégg nga lim nga gis ñu jàpp firaaw na. waaw nga ne jàpp. yéen na doo gis ñu jàpp firaaw na. firaaw gis ko jàpp. waaw kon loolu doy ku ñuy suul mu sulleeku kuy dee du nëpp ku suuf gedd yàlla gedd kenn mënu maa jàpp. Ah. ñun dañoo yor lu garaaw lu garaaw lañ yor moom la mbëri di guerre noonu. couronne bi. njaab bi. njaab bi du couronne bi de njaab. njaab bi le 5 avril xoolal lay génn njaab bi jaabu roi bi. jaabu roi bi. da ngeen di défilé kon le cinq yéen. njaab bi le cinq lay génn. jaabu roi bi nii Paasow nii Franc nii. Molo nii Daam nii. ak booy PA ak ñëpp nii. njàbbi njàbbi rendez-vous. rang muy gaaw. compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko let's go. def ndànk rek <laughs> ba bu mu yàqamte rek affaire yi moom saa yi seen doosamaan jarul boo ko.